xibaar bu naqari pour équipe de France ak ay farandoom moo xëy daal di ruus joueur bi nga xamante ni mooy Ousmane Dembélé nekk itam ca FC Barcelone moom mi nga xamante ni dafa gaañu woon ci seen match ak Hongrie tombe woon ak ñaareelu journée ci Europe yi nga xamante ni moom la ñu nekk ci fàttali rek équipe de France dafa defoon match nul un bi partout ndax Ousmane Dembélé Europe bi jeex na ci moom. ndax Ousmane Dembélé blessure bi doon na blessure boo xamante ni mi ngi risqué li nga xamante ni mooy fin du tournoi loolu yëpp yaakaar naa ni buñ sukkandikoo ci information yi nga xamante ni am nañ ko ci le quotidien de l'équipe ñoom ñu ñuy xamal ni médecin yu équipe de France gannaaw bi ñu jàngatee li nga xamante ni moom mooy gaañu gaañu ñu nga xamal ni Ousmane Dembélé dafa gaañu ci li nga xamante ni moom mooy genou te gàtt ka gàtt dina toog ci loo xamante ni dina mat ba trois semaines mu doon coup diir pour ñi nga xamante ni mooy équipe de France ak coach bii di Didier Deschamps en attendant ñu daal di jëm ci seen match bi nga xamante ni match bu am solo la seen diggante ak Portugal mercredi bi ñu dégmal.